aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk si yéen di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala moo dool leen sutura ak wërsëg wu sax dàkk barkab alquranu karim comme nin ko baaxoo def saa su nekk rek ci vidéo yi nga xam ne ñu ngi leen di ko indil bés bu nekk ñu indi leen vidéo bu am solo ci képp koo xam ne danga tëju wala nga umu wala mi nga xamante ne bii yaa bëgg sa wërsëg ubbi di dox normal ci kàttanuk suñu borom di wax ni ngeen wéy di abone tey partage vidéo yi te di ko aimé comme ni ko di baaxoo di waxal waxee saa su nekk alhamdulilah ala kulli haal santal suñu borom subhanahu wa taala ci dimbali gim ñu dimbali wan amaat kàttanuk ñëw tooga ci jotaay bii di wax ak yéen ngeen ñuy dégg di leen teewlu te ñaan suñu borom mu saxal ñu ci njub defal ñu xusnal xitaam barkeb alquranu karim barke seexul xadim di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun si jëmm ju sell ju baax ji fi bàyyi ko muy sëriñ Seex Jëmb Fall di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu jéggal ko sa yërmandem ju kawe ja barkeb alquranul karim yokk ay leeram ak i ngërëmam ca barsàq dañaan jëmm jëm doon liggéeyal mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak Cheikh Ibrahima Fall ñu teeroo ko dalal ko ca àjjanay firdawsi ci barkeb alxuraanul karim dëkkoo ak ñoom ak rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ca àjjanay firdawsi ak mboolem julli nag bu dem barsàq ñaanal leen jàmm bu baax a baax a baax àdduna moom noonu rekk la baaxoo demal maa ngi ñëw rekk la waaye képp ko dem rek yàlla nga dajeek yërmande suñu borom waaye képp kuy dund ku nekkit war ngaa góor góor góorgóorlu ci jaamu suñu borom subhaanahu wa taala noonu rek mooy àdduna saxul te nekkul kër guy sax dana fi jaar jàll rek incha allahu rabbi waaye yéen ñi nga xam ne yéen bëgg a xool seeni mbir moo xam liggéey boo bëgg dugg la moo xam place booy waaje ubbi la moo xam soxna sooy bëgg la te bëgg koo takk wala nga am aajo te bëgg a xam saraxu aajo ba lu mu doon wala yow mi nga xamante ne bii yaay tukki say mbir dëgër nga bëgg xam lu mu doon yéen ñu bëgg suñu ndomba reesal gi ak ndomba gi nga xam ne loo def kenn du ko tudd ak càngaay yi nga xam ne bii càngaay yi bayre la moo xam bayre pour mbooloo wala yéen ñi nga xam ne bëgg suñu téere yi nga xam day dox ci wàllu mbooloo benn bi ñu koy xetuk ndeyjoor te muy xëcc mbooloo ci lu yéeme te lépp de alxuraan benn bi nag ànd ak ki ko am moom bu ko takkee aw fanam dana gudd lool ci kàttan ak suñu borom subhanahu wa taala boobu la ñuy wax bare bayreb kilifa nga xam ne bii da ngay am barke am bayre am wërsëg am mbooloo moom da nga yéemu suñu borom waaye yéen ñi nga xam ne ba garabu kër gi mooy ki nga xam ne dafa néew doole ci wàllu kàttanam sëy moo xam ndoxu man dem sax wàññi ko wala muy gaaw a daanu wala yéen ñi nga xamante ni bii tam yéen a bëgg suñu ndomba gi nga xam ne daa ànd ak wërsëg ak kaaraange xeeti kaaraange lu ci waay bëgg rek am na incha allahu rabbi façon tuli bu ci waay bëgg rek na jokkoo ak ñun si kàttanu suñu borom waaye mi nga xam ne yaa nekk ci relation te bëggoo ak war dugg ca wala nga nekk ak sa soxna mu won la ginnaaw wala nga nekk sa borom kër mu won la ginnaaw yow mi nga xam ne yaa am soxna mu jékki-jékki dem seen kër li olof naan fay te nga bëgg mu ñëwaat ci lu gaaw incha allahu rabbi ak xeeti cangaay yi nga xam ne cangaay yu wërsëg la lépp lu ci waay bëgg rek na jokkoo ak yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg toore foq téere foqat bi moom itam mi ngi fi nga xam ne day xëcc wërsëg ci lu yéeme ak jaara bii nga xam ne ñetti mbir moo ko composé muy bayre ak wërsëg ak kaaraange te doole ji nag ëppee ci bayre ak xëcc wërsëg mu doon jaara boo xam ne moom ragal naa gaa yi xamal leen ko seen bopp ndax ñi ci intéressé wu bari na lool képp koo xam yittewoon ko rek foo mën a nekk na nga jokkoo ñun incha allahu rabbi santaat suñu borom subhanahu wa taala xam-xam yu wér moo fi nekk yoo xam ne alxuraanul karim rekk la ak lenn ci li mag ñi bàyyi mu doon xam-xami tegtal xeet yi xam ne làppatàkk la mooy xàcc daanu wala ko xàcc loxoom du wàcc wala koo xamante ne bi mer noonu la sax bu yoroon gànnaay dangay gis gànnaay la di lemu ñu koy wax ndambal weñ incha allahu rabbi wala dóor daanu yëpp am na fi mbokk tey li leen indil mooy képp koo xam ni sa wërsëg dangaa gis dafa wàññi ko wala dafa tëju ba mënoo am dara ñu indi leen saar bu am solo boo xamante ni bii mooy aram nasara aram masara li ci nekk suñu borom subhanahu wa taala rek moo ko xam ku nekk mën nga cee indi jinni secret waaye du tax nga jeexal ko moom saar la boo xam ni moom ubbi wërsëg ak jàppandal mbir moog waaqia ñoo yem ci boobu côté ubbi wërsëg ak jàppandal mbir yëmbal ay mbir moom daanaka man nga ne loolu rekk moo tax mu wàcc ci kàttanu suñu borom moom moomu leen indil tegtal bu am solo lool nag muy képp koo xam ne gis nga ne sa wërsëg dafa tëju wala mu wàññiku na nga wut ku bindal aram nasrax ba mu jeex 77 fois juróom-ñaar fukk yoon ak juróom-ñaar 77 fois ngay bind aram nasra ba mu jeex tàkk alam nasrah laka sadraka wa da'na anka wizraka alladhi anqadha zahraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab noonu nga koy bindee ba mu jeex 77 fois ba pare mbokk mi nga def ko saafara nga wut was wasoor xobi was wasoor xobi was wasoor wala sunguf sa nga def ko ca saafara sa nga sangoo ko ca barab bu sell juróom-ñaari fan képp koo xam ne jëfandikoo nga ko day bu fekkoonte ne bi da ngaa umu woon wala nga tëju ci kàttanug suñu borom suñu wërsëg dana sa wërsëg dana dox na mu waree bu fekkee da ngaa tëjoon ba mën a am dara moom da nga yëg sa bopp ak sa piku lool ci wàllu jàppandal ak wërsëg incha allahu rabbi ñoo ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal na ko barke te dafa leen lu kay seen jortu ci barkeb alquranul karim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu